Nyumbani. Soja ba. Wi. Wai sagara sagara. Subhanallah. Wi baba saral. Endar rek. Sawai. kom to da kay baba takle le. Abu gayal ba. Baba sagara. Aba na ko mona pe deo. Na la nyaa léegi li may def naa ko def ci bitéb bi nga la. Ah dit. Ok comme da sàngara ba nga loxo yi gi lañ koy def. Ah? nga ko ah? ah, xul xul daa la gisee doo laa la gisee xaw laa lay sakkati makkati njub may boo war naa la looloo naan. sëñ Jabaat ah da ngay saraante rek. ah jéggi dafa naan sëriñ si nga def ko nga def laa man ne sama ah, la mun naa leen la. ah mais bi sa bopp bi moo. ah këf ñu bank tuddee jégalu rek. nekk na taal bi lool. yi dama fay ñëwoon doon naan naan bu metti waaw ma ñëwoon fi nga ñaanal ma ngir ma bàyyi sàngara waaw bi ma ci ñaanalee tamit wax dëgg fa yàlla dootuma toog sax fa sama xel mi nekk sàngara waaw loolu moom ma la cay sant ci gërëm beneen bi mooy tey damaa ñëwaat ngir nga ñaanalati ma ma am liggéey jégalu wër jégalu wër. baax na xel ba ñaanal taxaw xel ah xam nga xel ne ci nit ah waaw xam nga xulu daal lu gis lu gis xoolal sëkkati njublu waay waaw xëy na mu doon ah bëgg a xeex nii na ci ah xam naa ne bii bu ñu ñaan nii lay def ah ñoom ñooy géej daal ah ah ah te noonu musique dafa araam sa jabaay da ngeen def ça fi l'autre jour nga ñaanal ma euh, ma bàyyi naan sàngara encore ma ñëwaat nga ñaanal ma ma am liggéey donc maa ngi liggéey macha allah am na xaalis bu baax encore Serigne Jabaay merci bëgg naa tam nga yokk sa ñaan bi sëriñ Jobaay na ñaan laat ma am jabar bi dàq su quartier bi Serigne eh, Jabaay li ngeen def Jabaay laa jugal xool sa daal yi yow waaye bu mu ah, eh, eh, kii gàtt a jël sama yaay suma sëriñ seet ñëw naa nga ñaanal ma ah, nga poobax ma ma bàyyi naan sàngara ma ñëwaat encore nga poobaxaat ma ma am liggéey macha allah ma ñëwaat sëriñ jabaay nga poobaxaat ma ma am jabar bi dàq ci jabar yi ok non tu dama ñëw sëriñ jabaay nga ñaanal ma pour man su ma deewee yàlla na yéex ma dem àjjana. wóolu naa la sëriñ eh, jabaay dimbali ma laa wax man mi maa la wóoluwul ah, eh, bi nga naan sëriñ jabaay ba léegi lu war man. ah na nga fi def rek loo xam taal bi war naa kilifaam bu àddee du dara boo ñëwee sëñ a ngi seen ray bopp. te plaît yow na ko maa dama ni dugg dugal wax. sëñ jullee woor ko nii nga ma ci jàppale moom saxoo ko di jàppale tey julli. waaw bu soobee yàlla lan ca am. danga may ma noonu waaye xam nga man temps ci ginnaaw dama fi doon naan naan gu metti waaw yëg naa ko ma ñëw ci sëñ bi ne ko na ma ñaanal fu ma bàyyi naan mbaa bàyyi nga dëgg yàlla bàyyi naa naan alhamdulilah loolu duma toog sama sama xel nga lu bon waaw mm-hmm. ma ñëwaat ci moom tamit ne ko dama bëgg mu ñaanal ma mu am liggéey mm-hmm. mu ñaanal ma wax dëgg fa yàlla am liggéey. ah macha allah alhamdulilah maa ngi liggéey. alhamdulilah liggéey bu baax laa beneen mu ñëwaat ne ko damaa bëgg nga ñaanal ma am jabar ju rafet. Ah. ci jabar yi. Hmm. dëgg fa yàlla sama jabar moo daax ci ci quartier loolu ñëpp wax nañ ko. Ah. nag yëpp dajee. waaw ma delluwaat ci sëñ bi ñëwati ci moom. Hmm. ko damaa bëgg mu ñaanal ma su ma deewee ma dam àjjana. nga ne. ma ñëwaat ci sëñ bi. waaw ne ko damaa bëgg mu ñaanal ma Ah. su deewee ma dem àjjana ah. yaa ngi mm-hmm. waaye sëñ bi satala gii la ma jox mm. def ci wax baax sida dogal ah dogal dogal waaw ah. ne demal ne ne waaw waaw ni ni ne waaw ke ni baax na waaw Bilal lii la la ma ne yow bopp bi dara nekku ci da ngay nelaw yeewul. sëñ bi